وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وحشي الرحمن بالغيب وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم sadaqallahul azim asalaamualeykum mbokki jullit yi bu ngeen déggee alxuraan bu sell boobu xale yi jàng ko nga xam ne ñoo ngi fii ci daara ji tabarkalla macha allah di waajal nag bés bu mag bi nga xamante ni na ndigal daan jógee ci xalif général des Tidianes Serigne Ababacar Sy Mansour ak njabootu Seydi Aji Malick gépp wàcc ci xaritam doomam di taalibeem di ki nga xamante ni mooy imam Malick Diop imam universitaire bi doon na woy juróom wa nga xamante ni la ko bàyyam ba bàyyi loon muy alquranul karim ak sunna xam muhammad ci loolu rek la nekk ñuy am nag bis bu mag bi nga xamante ni moom lañ daan amal comme nañ ko daan amale at yi weesu mu yemoon ak ren ak le 15 décembre 2018 ñu koy amal fii ci fayu ci wetu école primaire bi boo rombee poste courant bi bis boobu nag tabarkalla macha allah na ndigal la daan ñëwee ak nañ ko daan defee rek lañ koy defee bu ñu xëyee xale yi danañu xëy jàng alxuraanul karim tari wane li ñu mokkal nga xam ne jàng bi fii ci daara ji jàng mu wér la waaye bu ñu nee suutu xalif général bu réew la seen Cheikh Ahmed Tidiane nam ko daan defee daan ko fekkee daan ñu ñaanal dana ñëw ànd kook ñun la macha allah ñu àndandoo di sant Seydina Muhammad kon nag bis baa ngi noonu le samedi 15 décembre lay doon à partir de 21h ci la guddi gi tàmbali waaye nag ñu ci woo nag. képp ku naan ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah di ci woo jullit yëpp di ci woo waa xadara bi di ci woo daayira yi nga xamante ne ñoo nekk ci dëkk bi ak mbooleem ki nga xamante ne ay islamologue lañ di ay naataango di ay xarit di ay wëllëre imam Malick Diop ñu ngi ciy woo nag tabarkàlla macha allah xaritam di magam di doomu ndeyam di kenn ci moom di boroom. Chérif Dabakh TV di Chérif Ibrahima ay dara bi nga xamante ni l'islam jamu ko ku ne xam jikkoom ju rafet ku ne xam waxam ju rafet ci umma islam bi yépp woo ci nag ki nga xamante ni mooy Ahmed Khalifa Niass l'intellectuel islamologue ak nag tabarkalla macha allah doomu ndeyim Serigne Sidi Muxtaar Kunta ak nag. tabarkàlla macha allah imam Abdallah Cissé doomu imam Madior Cissé ca Ndar ah bala may sori damay jox kàddu gi nag Serigne sàmba Mbeng mu dem ci bis bi aay bu paree nag ma ñëw ci responsable yi nga xamante ni tabarkàlla macha allah moom la ñu woo ci bis bi kon Serigne Ibrahima kàddu gaa ngi. a'uuzu billahi samil alim mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara mbokki Thiès di leen woo ci bésu alquranul karim ñu koy amele fii ci Thiès ci fayu ci Cheikh Hadji Malick di ko def fii ci Thiès ci fayu di woo mbokki waa fayu yépp di ñaan seen teewaay di ñaanal di waa woo waa xadra bi di woo waa koskaas di woo mbooleem jullit yàlla yi képp koo xamante ni yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu ngi lay woo ci bés boobu guddi gi nag guddi gàmmu lay doon guddi tagg sayduna muhammad salallahu alayhi wa sallam képp koo xamante ne am nga mahabat rasulillahi ñu ngi la ciy woo bis boo xamante ne nag mbokki Cees yépp a ko moom surtout nag waa fayu comme ni ko sëñ Njaay waxee ñu ngi ciy woo ñëpp ñu ngi koy delloo kàddu gi mu nekk kàddu sant ak ngërëm ñu ñaan yàlla na yàlla eggale ñu si jàmm ñu eggale ko ci jàmm ci barke sayduna muhammad salallahu alayhi wa sallam bismillah jërëjëf Serigne sàmba kàddu gi rafet na kon nag bis baa ngi noonu tabarkàlla macha allah waaye nag ngeen koy am en direct nag ci Cherif Dabakh TV de 7 ba fajar jot dara du leen ci raw waaye nag bis boobu nag euh, imam Malick rek di ci woo nag ki nga xamante ni mooy son excellence monsieur Macky Sall président de la république Sénégal bi nga xamante ni mooy l'ami des chefs religieux ak soxnaam bu baax boobu tabarkalla macha allah ajaratu Marème fay Sall a taxawaayam ci diine ji ak euh, le ministre Aly Ngouille Ndiaye le ministre de l'intérieur woo ci ki nga xamante ne dafa bëgg diine fonk daara yi di Abdou Karim Sall directeur général bu ARTP ak nag ki nga xamante ne mooy le président Idrissa Seck ñoom ñëpp woo na ne ci bis bi bala may soriwaat ma jox ki nga xamante ne mooy sox Adja nday Diallo mu indil ñu ay leeral ci wàllu jigéen ñi ci bis bi. asalaamaaleykum mbokki jullit yi asalaamaaleykum mbokki fayu man soxna nday Diallo maa ngi woote ci suñu gàmmu annuel fii ci fayu ci côté eh, école primaire bi. gàmm gi nag bu ñu xëyee xale yi dañuy tari su ngoon jotee à partir de vingt une ci la gàmm gi ci commencé ñu ciy woo nag bépp jullit képp kuy wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah ñoo ngi lay woo ci sunu guddi gi di ci woo nag ñépp rek bàyyiwuñu kenn wasalaam jërëjëf Adja Ndeye kàddu yi rafet na léegi nag ñu jox kàddu gi nag ah koo xamante ni tabarkàlla moo fi teewal parents d'élèves yépp islam bi ñor ko lool muy soxna soo xamante ni tabarkàlla macha allah teewaaleel na dëkkandoo yi di soxna maam ndaak ma madame siis mu indi ay kàddoom ci bis bi ahousu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sayyidina wa mawlana wa abibina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rabbi sarax li sadri wa yasri amri yat fa fa xaw xaw li gannaaw ba ñu santee yàlla julli ci rasulullah sallallahu alayhi wa maa ngi nii ñu fi toog ñëpp di leen sant ñu yëgle nag gàmm gu mag macha allah jóge ci xalif général wàcc si suñu càmmiñ suñu jëkkër di El Hadj Malick dëgg ci koñ bi nag wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk sa doom di fi jànge te doo fay dara laajul kenn un franc lu dul na nga sang sa doom létt sa doom muur sa doom indi ko mu jàng ñun de waa koñ bi mun ñu koo fay kon ñun ñoo ngi woo waa yu gépp jigéen ñi waa mbootaay gi maa ngi woo ñëpp yu bis bi suñu bis la na ngeen génn kër yi na ngeen xajal gan ñi na teeru gan ñi tatagal gan ñi te xam ne bisu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lu ci waaye def moom rek nga koy defal imaam ñoo ngi lay sant ñoo ngi lay gërëm gàmm gi nag ñoo ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn ñoo ngi woo ñëpp ci barke sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam képp ku fi teew yàlla na jàngoro bu fi waaye indi yàlla na ko yàlla faj ci darajay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf jërëjëf soxna maam daa kàddu yi rafet na kon nag bis baa ngi noonu tabarkàlla kon ni leen ko waxee woon rek waaye nag di ci woo bu baax waa diaspora bi bu ñu tuddee diaspora yi nag sunu xel day dem ci Serigne Mohamed Jiliif nekk ca États-Unis ak nag Serigne Ibrahima Seyku Sow woo ci soxna Astu Guèye di délégué de quartier bu mag nekk ca Médina famille fa El Hadj Abdalaay Guèye ak taawum bu baax boobu di soxna Faatu gay woo ci Ramatulaay Jaañ Mbeng directeur nekk fii nga xamante ni mooy Thiès ak Pape Ibrahima Samb recteur directeur bi nga xamante ni moo ko fi jiitu woon woo ci nag Cheikhou Fanta Madi Jeyti ak tabarkàlla macha El Hadj Ndiaye Presta woo ci imam Malick Ndiaye bu Caaroy Azur woo ci famille feu El Hadj Mamadou Camara ak soxna Aïda Ndaw nekk ca France bàyyiwuñu nag waa daayira sopp na bi bi nga xamante ne ñoo nekk ca Mbuur présidente bi soxna Penda Fay soxna maam bint Ndongo soxna Astu Diouf ñu nekkal fi bu Bougane Gueye Dany jiitu jigéen ñi ci mouvement gëm sa bopp ak soxna Oulimata Diop Jong waaye bàyyi ñu Serigne Mamour Mbeng bu Rufisque ak association Cypress bu Tëngéej ak tout la famille feu Amadou Alpha Sow waa Rumde ak waa Dekle soxna Aydan ñaa nekk ci randu leen noor fii ci Thiès ak Ibrahima Diop ak imaam Idrissa Diop mi nga xamante ne tabarkàlla macha allah mooy sunu mag di sunu kilifa tey it tabarkàlla macha allah di njiit loo xamante ni ku ñëpp naw loole waaye bàyyiwuñu nag ah. ki nga xamante ne mooy njaga jaw di kenn ci imam Malick Diop kon nag bis baa ngi noonu tabarkàlla macha allah wax nañ leen ko dinañu am direct ak fi nga xamante ni mooy Chérif Dabakh TV bis bi yépp dara du leen ci ump léegi nag ma jox nag sama jigéen tabarkàlla macha allah soxna Binta Ba mu indil ñu kàddu la macha allah ci làkk bi nga xamante ne ñun ñëpp moom la ñu xam mbokk sunu maam ji bàyyi lañ ko fa nu muy làkku alpulaar bismillah aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim euh, caggal yettude allah e nulaaɗo mo seydina mouhammad sallllahu alayhi wa sallam emin euh, jetta jinnaɓe ɓe fof emin kadi nodda on e ranga quartier bi yeteeɗo fayu sala sa école euh, primaire o oh. emin jogui toon euh, ñalawma ma woni ñalawma seydina mouhamed ma ñalawma alquran euh, guila subaka à partir de 7 heures ha vraiment ha fajar allah emin jogui toon gammu mawɗo ewa subaka o oh, sukaɓe ma janggo alquran inchallahu rabbi invité ji foof ne ñaaga yo ngar e keewal so yeehi ha euh, jamma à partir de 21 heures ne waɗi euh, euh, gammu mawɗo mo kilifa kilifaɓe mawɓe kadi ma ngar hen e ha tenti e kilifa woni halif général lewna ñasen ma ar hen so allah jaaɓi inchallahu rabbi oɗon foof kala biyowo mbimami ne nodda hen e keewal mbeɗo noddi koreji foof mboɗo noddi tengueji naaɓe foof ah, eh, guymohen naaɓe arafat naaɓe foof yo gara kewal so allah jaaɓi inchallah ne waɗi ñamde ne waɗi yarde machallahu rabbi son gari ɗo enne on dañata hen so wona eh, ɓeydare e banggue diine moon e banggue l'islam moon e gardugol eh, mawaɗo men kilifa men élage euh, malik diop woni kilifa men kanko noddi en e alquran kanko noddi en e diine kanko noddi en e l'islam donc onon fof oɗon ñaaga yon gara kewal e salamu aleykum wa rahmatullah jaarama binta kon nag bis baa ngi noonu ñu fàttaliwaat leen nag mi ngi am le samedi 15 décembre à partir de 7 heures du matin la ñuy commencé ci ndorteel njàng alquran mi yendoo ko tabarkalla macha allah waaye nag bu 21 heures jotee nag tabarkalla ñépp génn sa ci tànt bi ñu fàttee ne màggal seydina mouhammad kon nag bis baa ngi noonu noonu bu ko kenn wutee fii lay amee ci Thiès ci quartier Fayu ci wetu école primaire bi imam Malick Diop mi nga xamante ni tabarkàlla macha allah musta yàq benn bës ku musa xewle rek tabarkàlla macha allah dëbbale na la kon nag bisam boo ngi noonu woo na ci ñëpp bàyyiwuñu kenn na ko ñëpp teewee le samedi 15 décembre lay doon à partir de 7 jàpp ba 21 heures lañ koy def ñu leen xamal ne amul nag la macha allah cérémonie officielle amul lenn bu jotee rek na ñëpp ronu tante bi ñu fas yéenee màggal Seydina Mouhamed ba fajar jot.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 من تفاؤت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو قصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها صعيحا ويطفوا صدق الله العظيم